jërë ngeen jëfe ci seetaan beeg topp bi asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu ñii di waa police nationale foofa ca diwaanu Sénégal daal di eh, yeewoo naqar ak tiis li waral nag du leen rek lu dul police bi ñuy dippee Silla nekk foofa ca Matam doon fa servir moom Silla moom kat moo ñàkk bakkanam gannaaw nag ba ñu ba mu. Eh, daa di jëlee rek li nga xam te mooy pistolet ma fàtte ne ab bal réel ma nga ca mu daa di dóor eh, nom ko dóoree rek ca pooj ba la ko dóor ñu daal di koy évacuer foofa ca hôpital bu eh, Matamba daal di koy defal li nga xam ni sax mooy wàllub opération bu ñu sukkandikoo ci waa Seneweb opération ba daanaka rek réussiroon na waaye daal dafa mujj rek daal di amee li nga xam te ni mooy hémorragie muy rek deret bu takkoo takku bu doon génn ñu doon ko évacuer foofa ni ci la mujj rek daal di euh, ñàkk bakkanam ci noonu ñu daal di nemmeeku na nag euh, jébbal nañ ko boromam foofa ca diwaanu Kolda fi nga xam ne foofa la dëkk di origine am euh, ñun waa rédaction bu HD 221 TV ñu ngi koy ñaanal suuf fooyof ci kawam di jaale bu baax a baax ay mbokkam mbokk yi li moo nekkoon li gënoon a fees ñu ngeen di ñaanal jàmm di leen jox dig daje ba beneen incha allah.